tardé kon dañuy daal di ñëw ci lu ëtt yéene kaay xëy fësal démarre bien entendu par Walf Quotidien. waaw Walf Quotidien dañ koy xëy tàmbalee dafa xëy wax ci lu jëm ci wàllu njëgu dund bi ak it naka la ñuy def ba wàññi li nga xam moo di njëkk lu lees bi kii demee ko xam ne moom dafa jàpp ne loolu doon lu yomb ndax état bu Sénégal fu mu toll ay keesam dara amu ci kon subventionné yenn produit dina doon lu jafe ci moom ba tax na daal tëral na ay gis na ay pexe yoo xam ne boo ko Bassirou Diomaye Faye président waxee defee amaana njëgu dund bi mën naa wàññeeku Sénégalais yi te fekk na euh, subvention do am nañu la ko yéen kaay gi yéenekaay gi nag xëye tey eh, ba génn na àdduna ni euh, dalal euh, euh, moom mi di Mamadou Diop Decroix wax na ci wàllu souveraineté maanaam fexe daal ba ñuy lépp lu ñuy am ñu koy maanaam ñu koy liggéeyal suñu bopp wante tamit ci coppite nga xam nañu ko indi suñu campé bi lee loolu nag projet la boo xam moom la Diomaye Faye porté ba tax kii di Modou Diop Croix joxe na ci xalaatam mi ci yéenekaay gii di réew mi. bu dee 24 heures dafa xëy dalal professeur Ahmed Ndiaye professeur titulaire la en droit yëkkati na ay kàddoom daal di wax ni la muy xaar daal ci Bassirou Diomaye Faye di ko xaar ci président di président Bassirou di ko xaar aussi Ousmane Sonko mooy ñu fexe daal ba tëggaat benn constitution bu bees ndax Sénégal jamono ji président milliards ak kiir fond force covid 19 bi nee mbir moomu lay waree su koy bàyyi mu jàll foo daañ ko luñutu noonu la ko yéene kaay euh, di la tribune xëyee dellu nga xam ne koy dudd jamono ji jamay nag nee na euh, incha allah dana baax ci jamono ji jëwri ji nga xam ne dénk wàllu finance ci nguur gi ma ngay xam ne ne Sénégal daal ñu ngi dem ci ay guddi yoo xam ne nii dana metti lool noonu la ko yéen gi xëy fësale ndax yéen gi di la tribune dafa xëy dalal dafa xëy dalu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ni liggéeykat yi nekk fële ci ONAS ñu ko dund jamono ji daanaka ak fantasiro moo dox ci seen diggante diggante Mamadou Mamour Diallo ak liggéeykat ya ba tax na ñoom ñu jëlee Mamadou Mamour Diallo euh, foofee nga xam moo ne ci ONAS ndax lam fa nekk daanaka kenn xamut lu muy nuru mu ngay jël ay nit rek di leen recruter euh, di def lu ko neex loolu daal la liggéeykat yi wax ne mëntu la béy moo tax ñu sàq yoor yoor dafa xëy dal wax ci Prodac Gate yéenekaay gi ne donte le Mame Mbaye Niang mooy yëkk ay waaye li wér te mooy nañ jàpp moom mii di Mame Mbaye Niang euh, mënta mucc ci rapport bi nga xam waa Cour des comptes def na ko mm-hmm. nee nañ fu mu toll nii moom setal euh, ci la nga xam dañ koy tuumal ci wàllu Prodac noonu la ko yéenekaay gi di yor yor xëye fësale bi le jour xëye dellu si ci dossier yi nga xam ne ni euh, président Diomaye Faye bëgg na daal ñu indi ci ay maanaam bëgg na ñu xool naka lañ koy jooyante ba teg fa ay nit yoo xam ne nii daanaka nit nit ñu mucc ay bi lay doon euh, muy fu ci mel ne OFNAC Cour des comptes parquet financier ak ñoom seen waaye président Diomaye Faye moom lu muy sàkku mooy ñu fexe def lancé appel à candidature ka nga xam ma war a jiite of nag ëllëg noonu la ko yéen gi xëy fësale waaye yéen kaay gi dafa ne Serigne Bassirou Gueye jamono ji ndax jilee ko ko yéen kaay premier voyage bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye war na ko amal euh, ñu bëri daal ñu ngi njort ne ndax du doon fële ci Nouakchott ca Mauritanie yéen kaay gi moo xëy fësal euh, lan moo waral nag Bassirou Diomaye Faye tànn réew moomulee laaj la boo xam laaj bu sample yëg ay kàddoom eh, di ñaaw rek la fait eh, passeport diplomatique yi nga xam joxoon nañ koy ministre yi njëkk yi eh, daanaka daal léegi moom gars yi dakkal nañ ko mayeetuñ leen ko ñu suñu voyage yi mu nekk nag loo xam lu métti la moom soxna si ba tax mu yëkkati ci ay kàddu di koy métti noonu la ko yéene gi di la source a ne premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar ni ki tey jii fële ca building administratif war na fa am nag ab tukki ak tànki nemee ko li ko waral nag xam euh, yéen kaay gi mu ngi ciy dellu siwaat yéen kaay tamit xëy dellu siwaat ci euh, dogal yi nga xam ne ni euh, président ba Diomaye Faye jël na ko wax daal di wax ne daal mbooleem ministre yi nga xam ne kon ci nguurug Macky Sall te amoon ay passeport diplomatique seen passeport diplomatique yooyu la baaxatul noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ci jamono joojule Gris Bordeaux ma ngay tontu Bass Birame Birame Souleye Diop ci la mu yëkkati woon ay kàddu wax nee ne ñoom dootuñu parrainé Euh, wala di ñuy euh, man dootu ñu nekk di parrainer benn activité sportive. ay amatul waaw yooyu daal amatul. <laughs> loolu nag doon loo xam ne lu metti la ki nga xam moo di Gris Bordeaux ba tax ne lu mu yàqul ki nga xam ne ni moo di. Euh, Birame Souleye Diop lépp mu ngi ci yéen kaay gii de source A. critique yéen kaay. yéen kaay gii de xam ne ñoo seq coalition Benno Bokk coalition Diomaye président ñu si bëri ñoom daal daanaka gis ñu leen gouvernement bi lee tax yéen kaay gi xëy sam laaj bëgg a xam ndax ñoom amuñu dañu am problème CV wala aussi nekk ñoo xam daanaka ci seen wala yorin dafa xaw a day waar moo tax euh, président président Diomaye ak Ousmane Sonko jël dëggal kon daal leen euh, beddi ci gouvernement bi laaj la boo xam ne moom la yéen kaay gi di kii xëy tey ji yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dellu ci lu jëm ci crise de leadership bi nga xam ne koy nemee ko jamono ji ci Benno Bokk Yaakaar ak kii fexe naka la ñuy def daal ba gën a bool euh, fabi yeewu askan wi

l'info yéen kaay dafa xëyee di delloo njukkal bu baax a baax suñu juróom-ñaari sages yi seeq conseil constitutionnel le fait que ñu jàkkaarloo président Macky ne ko déet bokk na ci li nga xam tey ji moo tax Bassirou Diomaye Faye nekk président de la République yéene kaay yi nag dellu siwaat dañu xamle ak suñu suñu juróom-ñaari saa juillet ak jeu bu am solo bi nga xam ne a jot ci bopp ko yéene kaay gii di leen foo xëy fësale jara delloo njukkal lañu moo di jigéen yi nga xam ne daanaka ñu nga nekkee fële ci diwaanu Saloum mm. ay jigéen la yoo xam ne daanaka ay jigéen ñu mër góor lañu dem nañ sax ba fu mu toll dañu taxawal seen bopp seen banque bopp mm-hmm. euh, te dara góor

président bu bu Guinée bi euh, di Doumbouya moom tamit fu mu toll nii ñëpp xam nañ taxawaayam Burkina Faso naka naka noonu ba ci kii di Assimi Goïta mi nga xam ne jamono ji nee na benn opposant muy amal ay activité politique ca biir ko yéen a kaay gi di l'enquête Golden Boys di euh, très di trophée boo xam ne nii benn ci équipe ya nekkee fële ci Italie moo koy décerné Sorin jàpp ñoo gën a xarañ ci wàllu football mm. Euh, ci téeméer noonu yooyu la nemmeeku nañ ci juróom euh, ñetti sénégalais ki ñu ci gën a ràññee nag moom mooy Habib Diarra miñ ne dafa nekk ci tànk yi wuutu kii di Bellingham ci euh, ci boobu la noonu la ko yéene kaay gii di stade xëy ay fan yu néew moo dox ci diggante Bombardier ak Franc combat la goo xam ñu bëri ñu ngi koy xaar euh, France di waajal boppam ñibbi nag yëkkati na ay kàddam kon daal di bombardier noonu la ko yéenekaay gii di sunu làmb xëy fësale jërëjëf Seydina Omar Ba ci jukkib euh, yéenekaayu euh, tey laataa ngay lëlbët journaux yi ñuy xamandi gum lan la ñuy war a a dem nañu sax bay àddune xel def ba mën a wàññi njëgub mburu gi loolee nag bu mu tokkee ci nopp sénégalais yi mbégte gu yaatu la waaye am na ci ñoo xam ne nii faaw ñu xal euh, saytu ci seenu xalaat lan lañ ci euh, lan lañ ci euh, xam ci xibaar boobu léegi ci mel ni fédération nationale des boulangers du Sénégal ki fi teew seen kaddu yor seen kaddu di Joseph Diap il n'est plus à présenter en tout cas si wal monsieur Diap jàpp ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal. maa leen di fay di leen sant di leen gërëm. ci mhm. invitation bi ngeen yi nuyu seen téléspectateurs yi nekk ci Sénégal ak yi nekk bitim réew mm-hmm. donc euh, di wax ne ñëw naa. Mhm. defe naa ñëwaat naa fi ñëwati nga sax ñëwati naa <laughs> donc euh, mu ngi noonu. yàlla nga yàgg a ñëw. amiin amiin. <laughs> du yéen du ne ngeen yéen mburu bi du ngeen ko wàññi wala kuy wax koy wàññi di ngeen attaqué ko. fii ngeen ñuy fekk mburu bi di ngeen ko wàññi. ci nii wala ci nee non attaqué wuñu kenn. <laughs> kon baax na ñun ñu ngi xaar seen. attaqué wuñu kenn Sénégal yi yëpp yéen la ñuy déglu mbaa xam ngeen loolu. xam nañ ko. mburu bi nag di ngeen ko wàññi. ñu nekk Sénégal mburu bi dañ koy wàññi ay sénégalais lañu ay sénégalais lañu avant ñuy nekk boulanger. waaw c'est ça en tout cas en tout cas alors Joseph Diab am nañu plaisir dalal ci rubrique euh, bu panier de la ménagère Mélanie Aminata Sambou comme tous les lundis Mélanie ah, bonjour. bonjour Aïcha. déwénati baal ma àq. waaw ah, baal naa la àq ah, amaloo. comme ngalax bi ñëw la kay baal naa la yow ngalax ñëwee rek baal naa la. <laughs> <laughs> borom galaxi neex yi <laughs> ziar naa la tu euh, di la nuyu di nuyu Salma di nuyu euh, ki nga xam ne mooy Seydina di nuyu di rafetlu présence ki nga xamante ne mooy Joseph Diap mhm. euh, mais avant mooy commencer nag je voulais vraiment présenter mooy condoléances à la communauté de Saint-Jude mhm. parce que li nga xamante ne démb dañu yeewoo ak tiis oh. suñu administrateur di suñu curé di suñu ñiital ci jàngu bi oh. moom moo moo daal di ñàkk bakkanam muy abbé Alphonse Diokel Diouf Diouf yàlla na ko yàlla yërëm a paix à son âme mhm. je voulais juste euh, dire ça au passage laata mhm. rek ñuy ñëw waxtaanee li nga xamante ne panier de la ménagère moom la ñu indi tey rek mhm. soxal ko ci euh, muru bi ak euh, ki nga xamante ne rek li nga xamante ne ñii nga xamante ne ñooy nguur gu bees gi ñëw ñu xool boulangerie yi ban fas ban taxawaay la ñu fas am ci ak nguur gi di ñëw ndax fuñ taxaw fa la ñuy taxaw ba tey wala bu waxtaan yembee rek nañ fas yéene changer mbir yi ndax consommateurs yi mën cee gis seen souvent consommateur yi mën cee gis seen bopp ah, jërëjëf Mélanie ci annonce boobule Abbé Alphonse Diokel Diouf mhm. ñu koy jaale jàngu bi yëpp et toute la communauté euh, chrétienne bu ñoo ñàkkee rek ñun ñoo ñàkk ndax Sénégal euh, daanaka benn bopp la kenn du ko xar ñaar te sunu kilifa diine yëpp benn la ñu ci suñuy xol nu mhm. leen di jaale bu baax a baax a baax Mélanie di la mastawu Mbaye Sidi Mbaye si laa doon ñëw léegi léegi sax je l'ai noté tout à parce que mhm. moom aussi euh, non seulement kenn la ci ñun ci taskatu xibaar yi mais ñun ñëpp jàngal nañu fut mon formateur également sama mémoire bi mu koy bind moom moo corrigé lépp donc j'en profite ñi ma xam baax a baax xam ma ci institut de management et ma ak Mbaye Sidi bi métti woon na ma trop trop trop ay yaakaar naa ne am na ci ñu mu métti ñu bëri ku ci mel ni yow nga xam ne sa papa la oui man sama man sama même ah. mi moom la rajo nekk nit ku baax nekkul ni mhm. da lay jàngal rek mais da topp ci conseil ci suivi mhm. boo defee fekkee lu baax mu woo la su fekkee dérapé nga aussi mu woo donc genre nit yooyu noonu bu fi dëddoo mhm. dañuy sentir vide mais koy ñaanal rek borom bi xaare ko aljana mhm. te àtte ko ci yërmande effectivement alors Seydina xam naa ne très foofu la commencer peut-être ci du yàgg waaw a <laughs> xam naa li muy am ci tey du bari tey kay moom tey dañuy jéggalu rek tey ñun ñi ñoo yéex a ñuy jéggalu bu baax a baax trois après comme ça comme ça mu libéré antenne bi. Euh, di jaay loo El Hadji Malick Guèye bu lan Mbengue aussi. Euh, moom it aussi wax dëgg yàlla génn àdduna ci weekend bi ñu ngi ko ñaanal aussi yàlla yërëm ko xaaree ko ci aljanna yi gën a kati mooy aljanna yi fiir daw si euh, moom it aussi xarit taskatu xibaar yi la woon ah moom ñu ngi ko ñaan di ko gërëm fi may wax daal benn la mu ngi jëm ci kàddu yi nga xam ne Birame Souleye Diop yëkkati na ko wax ne ne dootuñu fi pare neti benn activité politique ba mu ko yëkkatee nag fu nekk ay kàddu ñu nga fay jibee di dal ci kawam man Seydina Omar Ba je en phase. Mm-hmm. ak Biram Souley Diop. maa ngi ci Biram ginnaaw Souley Biram Souley Diop di ko jàppale à cent pour cent ci la nga xam ne nii wax na ko parce que aussi mënoo bëgg ndir bëgg a contraire am. Mm-hmm. Sénégalais yi ñoom ñoo plébiscité nguur gi fi ne ne dañu bëgg indi lu bees li fi nekkoon. doyatuñu dañu war a indi lu bees. Mhm. kon bu fekkente ne dañu war a indi lu bees ku mel ni Birame Souleye Diop bu waxee ne dootuñu nangu benn yoon ñuy parrainer ay làmb ay activités sportives kooku dama ci ànd ak moom à sa pour cent xam nga tax. Mhm. man je suis partisan de la modernisation man je suis partisan pour la reconstruction de l' état suñu état bi fi nekk ñëpp jàpp nañu ne dafi nekkoon am na loo xam ne ni baax na am na loo xam ne ni bon la mais ñu ñëpp dañoo gëmoon ne parce que li fi nekkoon baaxul. ba taxoon moom moo taxoon ñu plébiscité ñi wax leen ni wax dëgg yàlla dañ la war a changé. Mm-hmm. te nag changement dafa war a tàmbalee que ñu fiy taxawal ay ministres yoo xam ne nii ay guichet automatique lañu ay ministres yoo xam ne boo leen seet seet balaa ngaa génn sa bureau ñu jox la un million deux millions loolu dafa war a jeex Sénégal ba nga fa nañu waxante xoolal euh, gouvernement passé dama di laa rencontré benn ministre rek fii ngay toog ñu naan la ministre sangam bu la recevoir booy génne jàppale si 3 millions dee fi ngay dem ñu ne le ministre sàng wala directeur de société sàngam boo la recevoir jàppal ne boo génnee am nga 1 million sa biir poste. Hmm. mais 1 million bi nga xam ministre baa ngi koy joxe 2 million bi nga xam ministre baa ngi koy joxe est-ce que xaalisam la. Hmm. dañu bëgg lu bees. Hmm. kon lu bees li bokk na ci loolu léegi nag maintenant bu fekkente ne ñoom ay ay ay ay ay homme d'affaires lañu ñoom. di liggéey pour làmb am na fi ay sociétés yoo xam ne nii mën nañ faa dem ñu sponsoriser leen. Ah tey jii ñoom xam nañu fu ñu war a mën a jaar ba dem ci ay société ñu sponsoriser ñu dem la sponsoriser waaye waru ñu fay taxawal ay ministres yoo xam ne fi nekk di sponsoriser waat et puis nañ wax dëgg nañ waxante dëgg mm-hmm. ci ban ministère ngay dem nga gis benn rubrique bi ñu bind ne rubrique ko def uniquement pour parrainage kon xaalis fu muy rek mm-hmm. ban rubrique ban ministère ngay dem ñu ne la am na benn rubrique bu ñu fa bu ñu fa déjee parrainé ak sponsoring am na fa mm-hmm. léegi nag naka la ñuy bëggee lu baax ba na bëgg bëgg le contraire je avec Biram Souley Diop Sénégal dañu bëgg lu bees te pour teg lu bees il faut aussi ñu nangu ko. Mhm. wartuñ fee nangu ñuy seetaan ay hommes d'affaires parce que tout simplement c'est des hommes d'affaires moo a jóg. dëgg seen poste moo leen tax a jóg dañuy organiser ay manifestations parce que ay ndaw ñoom ñoo nekk ci benn activité. Mhm. kon bu fekkente ne yaa ngi régler say activité li gën a logique moom mooy yow xam nga société yoo xam boo fa dem mën nañ la sponsoriser. mais pourquoi ngay dem ci am ministère loolu moo fa a jeex. soxna Aïssa mhm. je suis en phase avec Birame Souleye Diop mhm. ku mu neex ku mu naqari nga xooli mais li mu wax man moom la ànd mhm. a ab ministre salaire am lu bari bari paase wul millions. mais tey jii boo ñëwee woo ko lamb wala tuddee ko ab xawaare ngay xaar ci moom mu jox la 5 millions 6 millions mais 6 millions fu mu ko jëlee. mais yaa ngi koy poussé pour mu ko pour pour pour mu détourner. te ñun dañoo jël décision indi fi lu bees kon lu bees loolu dañ koy dañ koy encouragé. Mm-hmm. Birame Souleye Diop ku ko xas saaga ko c'est parce que tout simplement da nga ko yàq. Mm-hmm. mais li mu wax man moom laa wax man Seydina Omar Ba fii wartuñu fa na benn activité léegi nag ministère du sport war na créer benn fonds. boo xam ne ni képp koo xam ne ni bëgg ngaa def activité nga dem gisante ak moom mu jàppale la mais pas suñu ministre di yël suñu xaalis di leen ko pare noonu loolu dafa lay jeex man fa laay fa laay jeexe rek parce jot na wax non a <laughs> waxtaan dafa bëri hmm. macha allah mais temps bi moom moo ñu ci dëgg bay defee passage de service ñoom bay jëlee lenge jox ko ministre sàngam nekkoon ministre bi kat man maa nekkoon ministre nekkatuma ministre léegi jox naa la passage de service seen document sax passeport dañ ko soxna boolaale. Ah mais luy ndayu tey jii nga nekkatoo ministre nga ñu ñu ñu lay jox ay passeport diplômé. foo ko teg du moment que tu rends les véhicules de l'État ah tu rends peut-être le téléphone de l'État tu rends tu rends tu rends kon kay rendre lépp état rek du loolu fii la ñuy gis ay député ñu jàppale jàppale loxo ci poos ndax lan parce que dañu doon trafiquer ay passeport diplomatique di def parce que ay député lañu dem di gisante ay soxna comme quoi que ne seen i jabar lañu comme ça après su ko defee di di maanaam di ko di ko weccoo ay 4 millions 5 millions fii la mhm. ñu leen jàpp jeex soxna saa yi sax. gis nga xoolal ñii dañ leen fay teg pour ñu indi lu bees. li ma leen di ñaan xoolal waxi gars yi nekk ci robinet yi parce que dëkk bi aussi dafa am ñoo xam ne nii. Mhm. ils sont dañ dañ grave. parce que dañu nekkoon ci système bu njëkk bi fi nekkoon di lekk comme c'est pas possible. léegi dem nañu ba ci biir fu mu nii booy li ñu nekk di teg nii arrangé wu leen. parce que naratuñoo lekk. léegi nu ko def. di di wi jël nañu ko ah. li may gën a xaas ñoom aussi di ko xaar si Ousmane Sonko mooy seen déclaration de patrimoine aussi maa ngi koy xaar. l' ensemble des ministres nekk ci gouvernement maa ngi xaar seen déclaration de patrimoine. comme ni ko Bassirou Diomaye Faye waxee sur le fond sax nañ ko mais nañ ko publier comme ni ko Bassirou Diomaye Faye defee ah loolu maa koy xaar si ñoom hmm. muy Ousmane Sonko muy l'ensemble des ministres nekk ci état bu Sénégal maa ngi xaar si ñoom ñu def déclaration de patrimoine hmm. parce que tamit kuy wootee kuy woote mbir kuy woote mbir kuy woote mbir dañ ci effectivement <laughs> kuy woote mbir moom yaakaar naa ne yaa ci yow yaa ci yow yaa ci war a am ci li am na solo am na solo on aura l'occasion li nga wax bu la ci kenn delloo ginnaaw maa ngi si Sénégal lu Sénégal bu bees mhm. constitution bu bees doxalin bu bees mhm. golo di béy baabul du nekk ma fa war Hmm. alors ñoom sax seen slogan c'est bien connu. Ah jub jubal jubanti jub jubal jubanti nag mënut a ay caaxaan ak i ak ay mumbaay. Ah, loo xamante ni si cadre intérêt benn personne la benn benn personne lañ ko war a lañ bu fekkee sponsoring dafa am nga uti ci ko mais nag euh, ay caaxaan yooyu moom dañ cee nekkatul daal dañuy liggéey daa mel réew mi liggéey lañu woote. dama respecté dama respecté mbër tax tontu ma Gris ko tontu. de <laughs> moom naa tontu Gris Bordeaux <laughs> bu moom day tontante de. ah c'est ça ko tontu ah non non c'est vrai parce que <laughs> li ma teg ko fenn. jaajëfal bu baax a baax Seydina Omar Ba loolu sunu rendez-vous demain. Ah, incha allah ngir gën a wéyal waxtaan am naa ci la ñuy gën a am temps bu soobee yàlla léegi-léegi sans plus tarder dañuy dem seeti euh, le panier de la ménagère